nañu que nous ñun Sénégal nous ñëpp ci les jeunes. Nous avons ku nekk def lu ko neex taxaw ne kenn pas faire àtte wala du ma menace pour état du Sénégal menace pour citoyen citoyens. donc l'État bi dafa war a jël ay responsabilités Ousmane Sonko dem allé devant les tribunaux D'abord, il strictement privé mais il a incité à la violence il a fait tuer 14 personnes dans ce pays à cause de son appel à l'insurrection. cela aussi ne doit pas être euh, ne, ne, doit être passé sous silence. Il doit répondre de ses actes. Si on ne le fait pas, le Sénégal devient... bu bu bu wuyul bu fekkente ni wuñ ko ci lolu réew mi daanaka ndand fay-fay lay doon bo xamné ku mu neex lula neex nga def et cela c'est dangereux lu dangereux le pour Sénégal te mom ak keneen ku fi mën a ñëw suba ku fi mën a ñëw suba li buñ ko réglé wul ah je yaakaar naa ni du doon loo xam ne luy baax ci réew mi la. damay faral di joxe kaaw président de la république Abdou Diouf licencié nañ fi ay policiers mu tas ay ay famille mu doon lu metti ci réew mi jamono jooju waaye boobu autorité état moo taxawoon. te loolu de euh, dafa taxaw ngir préserver kattanal état ba nga xamante ni mu mën a def liggéeyam normalement tey tey yéen gis ngeen ba yi tukki.

parce que amna lo xamanteni buñ ko régler wul mën na top réew mi bu ëllëgé kenn du reconnaître ben autorité ci dëkk bi té ñun ñi jàng droit ñëpp xam nañ ni état territoire la autorité ak ak ak, ak population bu ci autorité bi génné état amatul donc état bobu dañ ko war exercer pleinement et sans état d'âme et sans parti pris pour que vraiment ko xamante ni tooñ nga ñu yóbbu la fi nga xamné mom la mbax doone ben mom moom mu ne pare na pour dem procès euh wàllu Adji Sarr tamit met El Hadji Diouf na pare na pour dem est-ce que yow yaakaar nga ni état Sénégal ak ni dossier bi mel ak taw li ci nek paré na pour organiser procès. dossier bi ñiko ñiko yor ño xam li ci nek man xawma lu ci nek mais lima lèr dal moy Sénégal képp kuy sénégalais ñu woo tribunal da nga wara a dem. ak ko mën doon prix bu mu jar lu mu jar pour lolu am nako jar mais. réew mii du doon su golo boo xam ne lu waaye neex def lu la neex nga wax loolu dafa war a arrêter parce que loolu wóorul ci Sénégal donc état bi moom laay wax encore une fois na jël ay responsabilités ñu régler loolu parce que lu ko may nekkatuñ ci état ci jungle lañ nekk lu ko may nekkatuñ ci état ci àll lañ nekk lu waay neex wax lu waay neex def te loolu je pense que du sax ci état